ak a nag loolu la ñuy bañ ba lànk dañoo bañ ba tànk ci ñax lëkk bi mag Karim Wade mooy suñu président tey mooy suñu président ëllëg te bu ñu waxee ne Matam ah Matam kese Ablaye kii Macky Sall moo ko moom loolu ay wax la parce ñun ñii ñoo demoon defi barki démb Ndiaye à Midine à Hoore Fondé réussir nañu. bi commune halpularen commune amul nit umar bambe tem jam ko aslam balla commune de hoore faare amul nit ala ne ko fardu mi ne ko ne tali ko karim may sa wadda ko ni hande fayni hande on wona ko president amen jango minen banno mitin hoore faare min badi rewe sir mata foko minen jayi